combattons pour notre nation, notre chère nation. Nous devons continuer ce combat, cette lutte. C'est une lutte générationnelle. Une lutte pour la souveraineté nationale, la liberté. dañu war a xeex

sa nga sensibiliser ñi nga xam ni ñoo la wër nga sensibiliser ñi nga xam ni xëy na internet bi yeggul ci ñoom wala amuñu moyen wu dugg ci internet bi ñoo ngeen sensibiliser leen ngeen yeggee leen message bi ñu waajal seen bopp ñu préparé wu donc euh, gars yi bu ñu leen nuyoo sant leen di ñëwaat encore di waxtaan ak yéen euh, li ñu leen di njëkk a wax rek moom mooy ce combat là euh, combat de principe la combat idéologique la lu tax ñu leen di wax combat idéologique la pour ngeen xam ko mooy jëmm Ousmane Sonko jëmmam dafa tout lool ci combat bi porteur le de message ci combat bi waye douté même bu fi nekul ci jëmm combat bi day continuer idéologie bi day continuer vision bi day continuer parce que vision panafricaniste là vision souverainiste la vision nationaliste la donc que Ousmane Sonko nekk fi ci jëmm wala ñàkk fee nekk ci jëmm dañu war a continuer combat bi parce que combat wu libération ma jox leen ay exemple euh, tàmbale ko ci Sénégal Serigne Touba bi ko tubaa bi jàppee bañ ko boole ak tubaab bi ñu jàpp ko yóbbu ko est-ce que bu ñu jëlee Serigne Touba dugal ko ci bato bi yóbbu ko dafa tax mouridisme arrêté ma leen di poser question est-ce que tubaab bi bu ñu jëlee Serigne Touba yóbbu ko Gabon Mayombe yóbbu ko Mauritanie yóbbu yuñ ko yóbbu yëpp at yooyu yëpp est-ce que dafa tax le mouridisme arrêté wu déedéet musul arrêté wu nit yi dañ doon gën a adhéré junni doomu aadama adhéré nañ ci ginnaaw Serigne Touba bi ko Touba bi yóbbee ñu ngi doon adhéré ci yoonu mouridisme parce que idéologie la dogme la principe la malgré ko tubaab bi yóbbu woon nañ Serigne Touba jaare la ko dakaar yóbbu ko Mayombe yóbbu ko euh, Gabon yóbbu ko Mauritanie wërale ko ba tas bañ ko indee Serigne Touba bu mu ñëwee fekkaat na junni doomu aadama yoo xam ne bàyyiwu leen fa donc muy wane ni idéologie bi mouridisme boobu la gaa yi doon adhéré ndem tubaab bi yóbbu na Serigne Touba bu mu ñëwee da ko da ko doon yóbbu pour tàqale ko moom ak ay taalibeem ba mu ñëwee buñ ko delloosee fekk nañ junni junni taalibe yu bees yoo xam ne ñoom bu ñuy jël Serigne Touba di ko yóbbu bàyyi ñu foofu ñooñu muy benn ma waxaat leen yeneen léegi nañ dem ci islaam Muhammad sallallahu alayhi wa bañ koy xeex ba bu muy génn àdduna ba bu muy génn àdduna di làqu malgré que làqu na mais est-ce dafa tax islam tas déedéet ñam fa bàyyi woon ay guerri guerri guerri guerre am na fa entre ñoom waaye est-ce que tax na islam arrêté déedéet et pourtant Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam faatu et pourtant islam di continuer ñu bàyyi fa ay nit ay li wax plan B wu islam nekk fa plan C wu islam jiite na fa plan D ba plan Z di islam jiite na islam di continuer ba ci alxuraan bi sax dañ ko dajale. fe sëriñ ya Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fekkewu ko bu ñuy dajale alxuraanu yàlla ji Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fekkewu ko. Quran, bi nga xam moy pilier wu islam Quran, bi mo dajale islam budu doon alxuraan bi tay di muy livre bi nga xam ni mom mo dajale islam ñu ko dajale après mom après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko dajale. donc loolu yëpp day wane ni nit ak idéologie bokkuñu on peut arrêter un révolutionnaire mais pas une révolution on peut arrêter une personne mais pas ses idées on peut arrêter un révolutionnaire mais pas une idéologie Quand mënul arrêter idéologie doomu aadama donc euh, Pastef du lu dissoudre du du ay ay xel la maaseel ay xel la donc que Ousmane Sonko nekk ci bi wala que ci Pastef restera une idéologie boo xam ne dara mënu ko téye on n'arrête pas la mer avec ses bras kenn mënu ko téye gis nga nu islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu mu làqoo nu ko yàlla nëbbee làq ko mu mu faatu islam di continuer Serigne Touba ñu jàpp ko yóbbu ko mu mouridisme di continuer gis nga idéologie loolu mooy idéologie pour ñu xamul lan mooy idéologie ñu foog ne idéologie mooy jàpp nit ki affaire ba brek da yàqu wala ñu rey nit ki moo tax déedéet ñu joxaleen benn exemple ANC Nelson Mandela bañ ko jàppee dugal ko ci kaso bi vingt cinq ans de prison def na ko fa di toj ay xeer suñu lumière éblouissante di jéem a yàq bët yi toroxal ko fa naan loo nañ ko saw Nelson Mandela ci kaso bi saw saw saw ñu naan loo ko ko kabine na ñu lekk loo ko ko dàqe waa ANC rëbb leen am ñu ñu jàpp ay wini Mandela ñu japp ko ñeneen ñi la ñeneen ñi daw laqutu ji bitim rew gis ngeen malgré que ñu tot ñu yàq comme niñ def Pastef yàq ANC ñu ne ANC dañ ko dissoudre japp leader ba tej ray ñenn ñi tej jabar ja def tot lepp seen ba foog ni ñu tegal kay ndega aduna di dox ba Nelson Mandela ñëw jiite réew ma fayantewul ak ñoom ba fekk leen fa ñoom ñoom ñu ko toroxaloon ak ñu ko defoon lépp mu ñëw jiite leen donc lan moo tax bu ñu jàppee Nelson Mandela rëbb euh, dirigeant ANC ñii taw ñii ñu rey leen lan moo tax ANC ba ba pare dissoudre ko lan moo tax ANC ba tasul lan moo tax ANC chercher le naturel il revient au galop ANC mujjee ñëw ba jiite ba Nelson a jiite réew ma lu tax parce que idéologie kon ANC du woon jëmm ju ñuy bu du woon jëmm waaye xel la leer la donc Pastef du ay parti parce que Pastef ñu koy prôné quatre-vingt-dix pour cent yi Pastef looloo ci gëna yéme kon loolu motax ñu wara ñu mëna xamni Pastef idéologie la man mi diko défendre suba ak ngoon goudi ak bokku ma fa xawma sax keur Ousmane Sonko fan la exactement xaw ma sax part seen parti ñoom Pastef ñoom ñen ñoo quatre quatre ou cinq composantes laa ci xam ñoom seen bopp ñi nekk ci terrain bii occupé terrain bi kenn bokk ci Pastef boobu ne nit dof ma ne bokkul Pastef Guy Marius Sagna ba muy ba muy dugg ci Pastef sax yàggul ba léegi mi ngi mouvement am Cheikh Bara Ndiaye ba ngay gis bokkul Pastef xore si caam le basketteur bokkul Pastef nit dof bokkul Pastef ak yow mi sax bokkoo Pastef keneen ak kenn ñu bokkuñu Pastef musuñu toog seen conférence musuñu toog et cetera ñuy gën a défendre Pastef bokkuñu Pastef donc kon nga xam ni kon Pastef du parti politique romb na loolu ay idéologie la Karim Xurum Xaq bokkul Pastef Cheikh Omar Diagne bokkul Pastef ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci biti di xeex di reyante ngir Pastef te bokkuñu Pastef donc gis nga Pastef kenn mënu ko rey kenn mënu rey Pastef parce que Pastef idéologie la nit yi ñooy gis seen bopp ci ci loolu donc du parti boo xam ni dafa wuteeg parti yi nga xam ni ñooy parti classique yi ñu yu ñu jot a xam yoo xam ni nit yi dañuy dem bokk ji foofu dem am fa carte dem di militer foofu donc Lol moo tax ñu ne kenn mënul arrêter pastef kenn mënul té pastef pastef du mbirum nit yu ngay japp gis ngeen exemple yi ma leen jox yépp ñooñu ñi nga xamni ñom ñoo néwon leader mouvement yooyu leaderu idéologie yoyu malgré que liñ leen def lépp gis ngeen ñoo mujjé ndam li la leen di xamal ni Pastef bi ñi xex té muy idéologie muy principe muy vision muy vision yu wuteeg yi fi nekkoon parce que ñun jàng nañ le libéralisme le socialisme le marxisme léninisme yooyu rek ñoo fi amoon ñun gis nañ leen seen liggéey monopolisation bi benn buur ñeneen ñi nekk ay cogg ay jàgg di ko jaamu loolu moo fi mus a am ñuy dàq tey Macky Sall ku ko neex mun na ko dàq ci partem parce que moom mooy seen papa moo ko moom mooy dàqaate mooy dàqaate Ablaye Wade partem mooy dàqaate mooy toog bu mu neex mu ne kii ah, dàq dàq la partem donc <laughs> loolu kër baay la ay kër baay ay lë parti socialiste kër baay la dafa am ñu ko moom moo tax ñu dàq ñoom Barthélemy Dias ñoom Barthélemy Dias dañ leen dàq ñoom xalifa Sall dañ leen dàq ñoom Tanor Dieng ñoo leen dàq tëj lu xalifa Sall donc foofu parti bàyyi la benn papa moo ko moom sànc ko am ay doomam ay coggam ñu koy laabal ñu koy laab ñu koy ñu muy demal yóbbante ñu koy yó ñooñu loolu amul Pastef kan ngeen mës a gis benn Ousmane Sonko dàq ko Pastef nekk lay dàq Pastef même bu ñu ñëw di wax ay waxu ay ñaari mandat amuñu droit beeg yooyu ñu ne Souley euh, Souley Diop Birame Souley Diop bu ñu ñëwee ci moom euh, Ousmane Sonko dana leen mais man fii du APR du du du du PS du PDS man awma pouvoiru dàq nit loolu la leen wax awma pouvoiru dàq nit bu fekkee ni dafa cumulé ñaari mandat mooy député ak maire loolu ñëpp yéen ñëppay ñëw wax ak moom moo tax moom buy wax sax sénégalais la doon tontonteel mooy moo mooy Souley Birame Souley mais <laughs> Sonko bañ ko ci laajee def ne leen man de man du ma cumuler man mu ne leen man Ousmane Sonko ci sama jëmm du ma cumuler mandat du ma doon lii doon lii ñaar yooyu du ma ko moom bu ko defee rek yéen xeex leen ko loolu <laughs> loolu mosoo ko dégg feneen muy benn yag ngeen gis ay PS yu dajalo di xex di doranté sées di gañanté di rayante ay mala lañ amuñu idéologie ay xar lañ ay bëy lañ katu ñax lañ ak katu euh, ripass yag ngeen gis PDS ñu doranté du fëggante bulo di sànnante sées dret du tour mus ngeen gis ay pastifier yu tok fenn di waxtan dret tour fa mus ngeen gis ay pastefiens yu toog fenn di waxtaan chaise jóg mus ngeen gis ay pastefiens yu toog di waxtaan di fëggantey bulon foofu la nit yi nekk ku am jur doom ju baax mu bëgg a baax nga bañ ko def mala wala nga def ko bañ a def bëy wala xar wala mbaam xuux da ngay jël sa doom yónnee ko ci foo xam ni saa yu ñu dajaloowee xel ak xalaatu fay daw idéologie fay daw musuñu jóg di fëggantey bulon te Pastef fa dàq dajaloo fii boulon du fa mës a jóg allahu akbar man de bu ma amee sama doom falaa ka yow yebal fu xel am boulon sox amu fa amu fa place xel fu muy dox boulon amu fa palaas fu boulon dox xel xel jeex boulon day mottali xel bu xel fatte boulon fàttarni ko bu xel fàttee saaga mottali ko ñoom fa ñuy seen dajalooyee sa xel yu tuuti la fukki bulon ñaar fukki junniy saaga APR fu ñu dajalooyee ñaari ñaari yoon la ñuy xalaat ñetteel ba dañuy saagante ndey ñeenteel ba ñu fëggante bulon Benno Bokk Yaakaar pare PDS pare APR pare ñoom ñëpp mais Pastef ñoo daq dajaloo bulon du jóg saaga du jóg benn parti papa yaay képp ku baax Sénégal xool leen Pastef ñoo daq dàq dajaloo bunoo musu fa jóg Pastef ñoo dàq dajaloo saaga musu fa am allahu akbar idéologie loolu mooy idéologie xel xel xel ñu fay jaayante ba loxo yi day wàcc xel yi buy nàccee loxo day wàcc xel bu nàccee gémmiñ buy di génne saaga du fa xaj ñoom dañuy mottalantee saaga ak dóorante sées motax fuñu fu ñu direct tour ay xar ak ay beuy fuñu ñu dajalooyee ay nak direct day tuuru moo tax yu APR dajalooyee direct tour ba PDS etc. donc gis nga parti Pastef idéologie bob musul am Sénégal musul am parti yu xam yépp classique yu fi amone yépp direct day tuuru CG day naw ñu toj baaya ay nday dóorante ba xottante yére Pastef moom musa def idéologie boo xam ni dans peace love unity having fun knowledge xam-xam mooy seen activité moo tax ñi seen bàyyi jur ñu baax ñëpp ci Pastef lañ milité ñi seen bàyyi juri xar ay kay bëy mbaam xuux yu amul idéologie yoo xam ne seen bàyyi dañu jëluñu temps jël xel def ko ci seen xelu doom yi développé wuñ seen doom yi ñu jël ay tal wut lu ñu lekk ba jël seen doom yi xontu leen ak wëgg leen ci ndoxu sebet gi xontu leen ci euh, ñax mi ak coton bi ak ak euh, carton bi ñooñu seen doom yi dañuy dem milité ji ci mbaam xuux ya ak xar ya nga xamni idéologie amu fa xeex la ak doranté ak deret guy touru ak bopp yu toj ak yax dam motax sa tax saa yu ñu jógee di dafi doolé bu ñu génnee di révolté ñom ray lañ xam ci ñun parce que ñom ci lool lañ lool lañ formé wo lool motax ñu né Pastef idéologie la Sousmane Sonko ci bite ci bir Pastef régnera et gagnera ce combat parce que c'est une idéologie c'est ne mënul arrêter idéologie ken c'est de la mer à boire que idéologie l'idéologie. que Ousmane Sonko nekk ci kaso bi que Ousmane Sonko nekk ci biti l'idéologie pastefienne régnera en maître sur le sol de Serigne Touba de al Malik, de Limamou Laye de Baye etc., etc. de Cheikh Tijan, etc., etc donc l'idéologie pastifienne kenn ne ko arrêter kenn ne ko dissoudre kenn ne ko tirer, ngelaw la comme la lumière mohammedienne, la lumière mohammedienne, nit mu kenn kan lumière kan moo mën a téye lumière Pastef lumière la ci xol yi lay de di leeral xel lumière la c'est la lumière divine Pastef du yëfu nit ku xool doomu aadama ni ñuy

góor jigéen mag ndaw di cotiser lu waay am wuj wuj wuj sept millions huit millions trente millions mais sa waay sa baay da ko am sa yaay da ban parti ko fi am kenn amu ko fi moo ñu ñun nawloowuñu partie yii nga xam ne ay xarag yi béy ki lañu Afrique moo bugg a jóg le carré d'as Mali tàllal nañu loxo Burkina tàllal nañu loxo Niger tàllal nañu loxo ñun lañuy xaar le carré d'as toute l'Afrique unie ban leader lañ fi jàpp artiste africain panafricaniste yëpp di ko défendre Sonko kese Khalifa sàll tëj nañ ko fi ci kaso bi wu tuuti mu faatu fa yàllaahu benn lider panafricaniste musul bind turam wala sol tisetam wala faale ko parce que c'est un pur produit du système dëmb la nooxóor la infiro laqat jaaxum la sàcc la pees la nekkoon nekk na fa ministre sàcc na créé fi ay grève rey fi ay nit dëmb la sël Sonko lañu jàpp tous les leaders patriotes et panafricains sol ay tiset ñii yuuxu ñii ne moo ko ne libere Sonko nga dem ci euh, euh, euh, ñëpp tout Kémi Seba libéré Sonko Nathalie Yamb libéré Sonko ba ci woykat bu mujj bi ivoirien bi sol tisetam libéré Sonko kan lafi fi Khalifa Sall kenn defalu ko ko Karim Wade kenn defalu ko ko parce que ñooñu ñëpp ay doomu système bi lañ ay doomu biiralu système bi lañ Afrique nawloowu leen Afrique wuruñu leen yéen Afrique moo soif changement ba ci Tiken Jah Fakoly libéré Sonko kenn Sonko xamu ko sax sololu ko tiset Tiken Jah Fakoly Nathalie Yamb Kémi Seba euh, Mollah Morgun ak Guy Marius Sagna foo dem tous les leaders ba ci ivoiriens yi ba ci maliens yi ba ci boo demee ba Congo ka ay fépp libéré Sonko ba ci Mike Tyson Tyson boxeur libéré Sonko ba ci black américain yi boo demee libéré Sonko ñëpp ñu jot information libéré Sonko kenn defaluko Khalifa Sall Karim wad donc nga xamni une idéologie la du nit du nit idéologie la ay nit dañ ci Alpha Blondy Kenen ak Kenen, ay nit ñoo ci gis sen bop li c'est le panafricanisme Macky day le panafricanisme ba ci Faara Freddy demb la ba ci Freddy parce que dafa fess ci xol yi naa rek moy taxaw ne bu bul libéré Sonko ko xol naa la wala amul bop mais doomu adama bu yalla dimbalé fi libéré Sonko fépp partout que nekkal africain wala black américain wala whatever ñeppay ay Sonko parce que idéologie bi la donc Pastef du yëfu Sénégal dépassé nako c'est l'Afrique c'est l'Union africaine. C'est la mentalité panafricaine. Nul ne peut arrêter Pastef, nul. Nul ne peut arrêter Pastef sur cette terre. Et Pastef, le patriotisme, régnera en maître sur toute l'étendue du territoire africain. Le panafricanisme, le patriotisme, qui est Pasteur, régnera en maître sur toute l'étendue du territoire, national et international. On n'arrête pas la mer avec ses bras. kon noppaliku nous te xam ni lii du yëfu nit yëfu yàlla la nga rey Sonko sunko Sonko jóg nga tëral Sonko rendi beneen Sonko génnaat Sonko Nous ba Sonko mal islam malgré ñancare ñëpp islam a ngi fii ba léegi di taxaw di wax ñaata nit accompagnateur ñi accompagner woon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñu rey ñii ñu tàggali seen bopp yi ak seen baat yi ñii ñu xotti seen xol yi génne seen seen seen seen dënd bi génne seen xol yi yëy yëpp ba léegi islam a ngi nii di régner en maître ba léegi islaam a ngi nii. lu bari li nga xamni ni lañ ko tek ci islam bind ko ci islam sax après le prophète bi la Mohammed sallallahu alayhi Wasallam. après prophète bi muy kamil bi ak muy lu bari bari bari lo xamni dañ ko dajale après prophète bi donc arrêté Ousmane Sonko n'a rien à voir ak arrêté l'idéologie pacifienne patriotique dama len wax ni ñun ñoy gagner contre vents et marées France dem anak ak Amadou bak wane France momuñu France ginaaru France nenuñu ba xam yeen man laaj len yuñ len di jema a est-ce que lolu mun ngeen ko nangu xel di ko nangu. kan moy dugg ci mbagn gàcce gi France moy dugg ci mbagn gàcce gi yow yaay dugg ci mbagn gàcce bi yaay jël sa carte yaay tan sa carte xol ki la passef wax nga dabaj lolu ci France mun wala France mo ñuy ñu compté tar kii gagné lu ci France nan la France di France nan la mun a choisir nan la ñu mun a choisir njiit fu muy jaar fan lay jaar France ay intérêt am la am gëmul gars yi de gëmul Macky Sall gëmul Amadou Ba ak loo ko wax loo ko wax dofu ñu jënd jàpp leen xam nañ ni bu ñu dañuy dëpp carte yi te ñu ko lañ fay def Amadou Ba Mamadou Ba Buntu Ba. ñu ñu gënoon bëgg ñooñu ñoom France da leen mu France ñi mu gënoon bëgg da leen a mujjee trahir président wu Gabon baayam France ak France moo doon liggéey ak ñoom ba ci doom ja mais bu ñu bu seen bu fa newul dañ ko ne dëppëj bàyyi ko gars yi coup d'état ko ñu seetaan ko muy yuuxu naan kaay leen dimbale ma kon France ay intérêt la xam France xamul Amadou Ba Amadou Ba intéressé wu ko France amul lu mu mën a def ba ak junni candidat yu am ba gañe suñu réew mënul ne parce que du ñoom ñooy voté du ñoom ñoo ñi ñoom ñoo nekk ci ñun di ñu yóbbu ci biir bureau de vote yi du ñoom ñooy jël euh, euh, fiche yi duñ kon duñ ci dara ñoom dañuy toog comme Youssou Ndour lañ mel dañuy toog di xaar kay gañe ñu daw ñëw ñaan saraxu te li pays yëpp libéré nañ Mali bu muy libéré wu fii gars dañ ñëwoon dañuy sànku mais xamuñu lu yàlla àndal ak lu nit àndal ba Mali di libéré wu fii ñi naan dañ koy embargo ay da fii la xar mi di jaar fii la nangam ak naan ana Malien yi ñu ngi ba léegi ñu ngi dund. dans le nord France fa newoon def fa tinal di dundal ay rebelle naan leen ay islamist bañ leen dàqee foofu Mali dafa ñëw nangu territoire bi Tombouctou tey foofu yëpp Mali nangu na ko. Burkina nangu na fépp ñu ngi ko teg donc France naa fekk kese la mais amul fitu dugg fenn tànk waa dëkk boobu nelawuñu bàyyi ko mu jiite fa. donc France mu ak nu mu ànd ak Amadou Ba munu fi dara moomu fi moomuñu munuñu souveraineté national France xaju fa fu ngay jóg di dem di voté ji France loxoy France munu fa loxoy France munu fa ne donc ngeen xam ni France bi ñuy wax ni duñ ci dara duñ ci tous. duñ ci ñebe laa la wax ñebe duñu ko ci France mënuñoo wax ñun sëriñ yi sëriñ yi dëkkal nii sax mënuñu laa wax voté leen kii ñu voté leen <laughs> loolu kañ la fi jeex loolu kañ la fi jeex bu leen fàtte ne Abdoulaye Wade bu ñu koy daane ñaata sëriñ a taxaw fii dañoo fi ëpp taalibe voté leen nangam ak nangam fu mu mujj daane wuñu Abdoulaye Wade ñoo ñëpp gàcce lañ deme donc bu dee ñun suñu sëriñ yi nekk fii suñu xalif généraux yi sax buñu waxé voté leen ñu né ñoo lank kon du France mo ñu France ñoo wax amul souveraineté ci ñun amul doole ci ñun ba mëna wax voté leen ki donc lolu c'est dépassé on est libéré mentalement dañoo libéré wu amuñu complexe bobu donc France ragoluñ ko day gëna a da day gëna sax yakal. ñoñu daf leen gëna sax yakal donc pour xamal len ni le cerveau de cette révolution yene libérer l'Afrique du France du bénin, il yene la libérer et vous allez le libérer vous allez libérer Ousmane Sonko libérer l'Afrique c'est-à-dire Pasteur va libérer Ousmane Sonko Pasteur va libérer l'Afrique Pasteur va libérer le Sénégal ngeen préparer ko te xam ni yéen vous êtes le centre de cette révolution du keneen ku leen gëm loolu leneen tamit day kàcc te Macky Sall xam na loolu ñu mu àndal xam nañ loolu loolu moo tax lekkuñu ñu nalawuñu laaj leen depuis kañ la Ousmane Sonko gëj recevoir doomu aadama Ousmane Sonko mooy prisonnier bu ñuy bafoué ay ay droit am mais Sénégal dëkkub dëkkub xaj la mais dañ koy libéré nag dëkkub xaj la mais danañ koy libéré xaj yëpp danañ leen fa jëlee xaj yëpp danañ leen empoisonné xaj yëpp dinañ leen takk ba ñu dëgër ñu yóbbu leen abattoir xaj yëpp dëkkub xaj la nag Sénégal dëkkub xaj la parce que mooy dëkk boo xam ne dañuy jàpp ab nit di ko toroxal di ko toroxal di ko toroxal di ko toroxal ñu am ay ay njiit ñu ñu wooyee njiit di seetaan di seetaan ñuy toroxal doomu aadama ñépp gis ñu tek ay sénégalais jóg di xeex traître yooyu taxaw naan ay non ñii dañuy génne di xeex ñi leen di rey duñu wax ci ñi leen di rey duñu wax ci ñi toroxalaate ñu dem di sikkal ñi jóg di xeex injustice kon foofu dëkkub xaj la Sénégal moo nekk dëkkub xaj yoo xam ne reykatu nit yi kenn du leen jàpp te kenn du leen sikkal kenn du leen wax ni bàyyi leen nit yi ngeen di rey kenn du ko fa def du sëriñ du bu samaan du ñu ñuy yaakaar du ñu ñoom ñëpp tekk la def ñu jàpp nit di ko toroxal du ñu wax ay nit jóg di ko xeex ne bàyyi leen ki ngeen di teg injustice ay naafiq yu fa nekk taxaw nafik fekk mag ak ñu sikkim yu weex ak ñu bijaaw ak yu weex ak ay vrai biddo haram yu taxaw di seetaan ñi japp ay nit diko toroxal ay nit genn di xex lolu pour ñu libérer nit ki ñi leen di ray te duñu wax ci ñi leen ray lolu Sénégal la am donc du dëkk bu ñu naw la jamono ji en ce moment là dëkkub doome xaram deux cent la dëkkub xaj la ba ci Ousmane Sonko bu ñu jàpp dugal ci kaso bi moo tax Macky Sall yàkkamti woon di ko bàyyi ci hôpital bi Ousmane Sonko a compris combattant la mais tamit bopp la xam nga tax mu nekk bopp Ousmane Sonko ci kaso bi la ci gris ci gris yi avant moo dem ci kaso la commencé grève de la faim ci gris dimanche di grève de la faim ñu yobbu ko ci casse bi muy grève de la faim ba daanu fa ñu jël ko indi ko ci hôpital bi mu tane di grève de di grève de la faim jógaat grève de la faim mais bu mu comprendre ni ha Macky Sall ndekete sama ñu casse bi da koy arrangé malgré que ma ngi résister à l'oppression mais man je vois que waa ji tant que ma ngi fi di grève de la faim tok fi moom affaire bi da koy arrangé. ndax damay grève de la fait toog fi daanu chuté grève de la fait toog fi mun mun na ma fi bàyyi dix ans nga xam ni la nature a horreur du vide comme du génn kenn du ma gis kenn du wax ak man ma nekkee ci hôpital bi à part samay jabar ak euh, sama nijaay maanaam mbokk yi restreint keneen du fi ñëw donc du ma mën a partager sama idéologie bi nga xam ne dafa yanj yàlla da ci def leer ku ma waxal nga am leer comme Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam leer euh, moom Sonko macha allah leer dafa nekk ci moom ba xam ku waxal boo génnee am leer di di di di daanu leer Sonko du wax ak nit nga génn te doo moo tax ku wax ak Sonko rek da ngay génn Sonko di Sonko maa dañuy daanu leer leer kay bëri leer kay ball ku mu amul ku muy waxal génn kooku demee noonu mukk ku waxal boo génnee da wax te kenn du la wax loo Sonko maa di Sonko wax na ma Sonko nangam léegi Macky Sall xam na ni kii danger la bu génnee. yàlla moo ko may loolu gémmi gi dafa barkeel lu mu wax ku mu jàkkaar lool leer gee bëri ba ku mu jàkkaar lool nga dem ak leer bu la gallee leer nga génn di daanu leer ndax waa ji dafa fees dell ak i leer moo tax Macky am idéologie bàyyi ko foofu Sonko ak leer gu bëri gi ak xam-xam mu xalaat ne tërr xalam ñëw mu ne mais man mooy grève de la faim toog fii maa ngi xeex de mais bu ma toogee fii day arrangé waa parce que waa ji buggul tant que maa ngi fii moom garaawut moo tax bu muy mujjee mu leen damay dem sama yoon damay damay dem de moo gisaat la ko noo doo dem mu ne ko bii moom damay dem maa doon grève de la faim noonu di xeex am na stratégie boobu noonu gis naa beneen bu ko gën a doy waar moy bañ grève de la faim dem ca kasaba toog gars di ma reçoit ma len di recevoir di len dugal dara di len dugal xam-xam di len yokki leer loolu la ndo magi sa lank mais à la fin mu nangul ko mu yobbu ko Cap Manuel sa way dem tok mu duggal fu jundi caméra jël caméra yi ñu brancher ko ko palais xam nga caméra mu nañ ko def fee indi ki bi fi nga nga kay sétane fi mun nga tok fi di xol sa kër branché sa kër ay caméra nekk Canada di ko xool yéen xam ngeen si dara loolu moom du lu ñuy jàngal mun nga dugal say kër ay caméra dem ba Japon di ko fa seetaan ñu jël ay caméra ca Cap Manuel foog Ousmane ko nekk branché fa ay caméra de surveillance yu fee tel fu nekk moom kese gauche droite ca kaw ca suuf partout foofu yëpp ak fa ngay toog lépp mu branché ko fa ñu dem yóbbu ko palais Macky Sall di ko seetaan ña jotu xam gis Ousmane Sonko tuuti ñëpp daanu leer mais mais Macky Sall nee leen moo gën a focus ci Ousmane Sonko Macky Sall dafa bañ Ousmane Sonko ba bu laa moo lekk day seetaan day day seetaan journée Ousmane Sonko bi nii caméra bi seddaan indil leen ma ko ñu taalal ko ko nga gis Ousmane Sonko sol blouson bi espoir tar vélo bi tak tak tak sànni ay maajéer yi dóor ay coup tak tak tak xam nga ay gidan bride tak tak léegi Macky Sall rek loolu comme ngantam maami biir la yor ponkal na stade yi Aïda Soukona yaram bi yëpp graisse la mu gis ab jeune bu frais xam nga taxaw di dóor ay maajeeri ka ka ka sànni geneen bras bi wàcce kë kë taxaw mais yow mais kii léegi nag ku génn ñëw ne daanu leer ku génn non Sonko maa di non Sonko du Sonko léegi nag arrêté na sax maanaam visite ya léegi kenn mënatul gis Sonko arrêté na visite ya non mais aji moo non Macky Sall gis nga bonem boobu yàlla bu ko beneen doomu aadama mel nit gënu ko bon soxor la soxor seetaan googu muy seetaan gis gaa yi di ñëw depuis boobu sa semaine bii kenn gisul Sonko kenn gisul Sonko ñu jot a gis Sonko benn yoon gisaatuñ ko ba lii kenn léegi arrêté na ko kenn mënatul gis Sonko même xooli Sonko sax <laughs> xool bi di tax a ku ñëw daanu leer ku ñëw gis Sonko génn daanu leer dàmbëj bu mu ko gisee waaw sooy Sonko lu ma wax laa ilaha illallah Macky Sall lu mu ko wax wuy sawantay lu mu ko wax tuut di dox tuut lu mu ko wax wuy saw waa duñu attentat maa duñu coup d'état lu mu ko wax tuut di dox rek Cheikh Tidiane Dieye génn cay Sonko lu ma wax laa ilaha illallah lu mu ko wuy saw da lu ko tuut lu mu ko waaye xoolal ma lu mu ko waay waaye déglu leen caméra yi lu mu ko tuut wala ma tegal leen ma caméra yi waxoon tuut dox lu mu ko wax maa duñu coup d'état tuun ngi tàng jër ndax ku génn daaj Sonko lu ma wax mu commencé di lox nag lu mu koy wax way mais dina gis gars yi di dugg di génn mais mënul déglu déglu gars yi la ñuy wax caméra yi mënuloo wax li ñuy wax day gis nag mu commencé tiit moo tax mu woo gars yi saaga seen ndey ah yow yow dégg naa garde gis naa garde yi garde yi dafa taxawaal di ko yëndu gis naa kii arrêté leen loolu arrêté bu leen ko jox bu leen jox kii arrêté leen visite yi ñu arrêté visite yi <laughs> waa ji waa ji moo sonn <laughs> tant que Sonko mi ngi dund Macky Sall day dee ci que Sonko mi dund Macky Sall day dee ci jaxanama safara ci di dund Macky Sall jamono jii lu muy dund moom rek xam ci metti barke alxuraan Macky Sall dundul de li muy dund yàlla bu ko doomu aadama dund ci naqar gi mu jamono jii lu muy dund mu arrêté visite député Mamadou Diallo bu ko dem mu ne ko ak seeni permis mu ne ko lànk déedéet bu fa dem de Mimi turee di bëgg dem mu ne ko déedéet doo fa dem de kenn mënatu fa dugg ñu fa jot ña jot a siyaar sëñ bi ba léegi kenn mënatul siyaar sëñ bi ña jot a bi rek siyaar sëñ bi te képp ku siyaar sëñ bi ba nga génnee daanu nga leer képp ko siyaar sëñ ba Sonko ba nga génnee daanu nga leer yuuxu loolu moo tax waaja seytaane saytaane tiit ah ku dugg génn jébbalu ku dugg génn jébbalu ku dugg génn yuux wooy sama nday li ma gis laa ilaha illallah lu ma gis wooy liñ ma wax wooy liñ ma déy saytaane toog di dox rek a day lan la ñàkk doy xam la maram fay di fomp rek di fomp ñàkk yi <laughs> waaye dégg dégg nga dégg nga ndax mu ne lu mu ko wax naan ko dee dee laa ilaaha illallaah sooy Cheikh Tidiane Dièye génn lu mu ko lu mu waay waay sama di di bés naan ndànk ndànk tontu toogal nijaay toogal wuy non non non mënu ma toog non waay yow sa waay ki dansé la de ki bu la dee rek nga génn yuuxu ñu fa génn yëpp depuis boobu la ko arrêté kenn mënatul gis sow kenn mu ne kenn dootul si arrêté sëñ bi <laughs> <laughs> ba léegi nag une semaine a nga nii kenn mënul gis Sonko donc ay droit am en tant que détenu politique ñu restreindre ko ci kaso ba di wax ni sëriñ kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa nation bi yéen ñi fi toog jàpp leen ni am na prisonnier politique bu ñu restreindre ay droit am mu am droit visite ñu ne ko doo visiter kenn te kenn du la visiter jamono ji mi ngi am Sénégal ñi tok ci trône yi ñi tok ci khalife yi té yalla rek ay khalife ñi tok ci khalife yi nañ xam ni am doomu adama bu ñuy restreindre ay droit am en tant que détenu politique même visite amutul droit kenn visite ko le seul prisonnier politique bu amul droit kenn visite ko Khalifa Sall mosu ko am bañ ko tëjee bi kum neex dem seeti Karim Wade musu ko am bañ ko tëjee ci kaso ku neex bagn setiko Sonko rek mo recevoir une semaine ñu tëj ko ci deuxième semaine arrêté ko deuxième semaine Sonko est la première personnalité politique emprisonnée au Sénégal bo xamni une semaine de visite rek la def président ba xam arrêté visite et l'histoire retiendra que Sonko est le premier la première personnalité politique bu ñu dugal ci kasso ay doomu aadama dem seeti ko une semaine ñu arrêté affaire ya kenn mënatu koo gis kenn kenn su Macky Sall rek ay gis Sonko jamono ji Macky Sall kese mooy caméra ba ma nga jàkkaarloo moom di ko seetaan Macky Sall kese mooy gis Sonko jamono ji xëy na ci portable ba xam naa ne mi ngi pare xëy na sax eh, def nañ ko ci portable ba parce que day taxawaalu rek donc dañ xam naa def nañ ko moom rek moo mun a gis ko jamono ji te ce qui anormal loolu nag moo war a nekk débat wu yi loolu moo war a nekk débat wu mais ñu jéem jéem a dëpp seen xel yi au lieu ñu wax ci loolu seen taat yi tàng ñu nekk fii di leen wax ay waxu cent vingt milliards ak deux cent milliards yoo xam ni cent preuve du këyit du ojo du leetre du tus ay ponk lu day ni seen bàyyi toog ci ay média di ko waxtaanee ba di ci def plateau waaye dëkk bu aysata Diop Fall di woote conférence de presse di wax ay waxi Diop kese kese ba mu jeex tàkk dëkk boobu bu fekkee ne ab nit moo sànni ab kàddu kese ñu jël ko toog ci plateau yi di ko waxtaanee sans laaj benn preuve dëkk boobu nag buñ la nee dëkkub doome xaraam la boo ko bañee sa yaaya baaxut dama ne dëkk bu Aïssata Diop Fall ab journaliste bu nekkul fenn liggéeyutul ci benn média di wëndaala ko taxawaalu xeesal ba timpi tampa fii xees fii ñuul fii orange fii zone fii maro muy mel ni mbaam xuux di wax waxi dof ñu toog gars yi tënk tënk ko teg ko micro muy muy muy parloté di wax di n'importe am bu dee dëkk boobu loolu am na ay nit di déplacé wu ñoo toog naan dañuy déglu kooku du homme politique du dara du dara kon dëkk boobu

yar yiñ leen doon car di leen dàq di leen tëj ci biir kër yi mille milliards yi ngeen cotisé ceeb boobu ñu tegoon foofu Macky Sall romb naan day défilé loolu lépp film la loolu lépp film la ay saaku ceeb yu xonk lañ leen tagal saaku yu xonk indil leen ay saaku yu bëlëg yu verte yu marron yu orange ceebu jàmbur lay président ba défilé comme militaire ñu jël ceeb ba delloo borom ñu jënd ci tuuti te xale ko fële capp cappal jël mill milliards car leen ay yar tëj leen ci biir kër yi séddoo ko ñu def audit ñiy audité jàmm loolu bind ni sàcc nañ seen mille milliards ne Bamba Amar chauffeur kese la munul jàng munul liir mooy chauffeuru Moustapha Diop caga bandi salte boobu nekk Louga di tëddee jigéen ñi caga bordel sàcc bu mag di taxawaalu hôtel euh, ginnaaw euh, lu mu tuddati casino euh, teeru bi di fa iri caga ja di laal chauffeur am dawalkatu oto boo bind turam munu ko liir moo dem encaissé deux cent millions xalif général des mourides xanaa foofu la Baay Faal waroon jiitu de moo tax lu xalif général ba def loolu mooy dëgg ay nit yoo xam ne du ñu policier du ñuy gendarme jàpp ay doomu aadama di leen agressé di leen wat di nangu seen i bracelet di kat di agressé seen casquette ñooñu ay agresseur lañu. du ñuy bàyyi faal ay agresseur lañu moom lu xalif général def fa loolooy dëgg ne leen arrêté leen di agressé doomu aadama yi doo leen policier doo leen gendarme amu leen droit di faqat casquette jàmbur nit lay sol casquette di julli yàlla bindul terewu ko. lu yàlla terewul du kenn koo koy tere fii ku ko tere danga ko tere ci sa bànneexu bàkkan Serigne Touba terewul kasket musul bind fenn ne casquette dafa xaram yàlla bind ko fenn kon du kenn ku war a taxaw fii tey naan day tere kasket ku ko def danga ko def sa bànneexu bàkkan yàlla waxu la ko sëriñ Touba waxu la ko nekkul ci kaamil nekkul ci ci xasaay xasaay bi dangaa def sa bànneexu bàkkan wala daf maa tey nga def noonu ñu den agressé nit yi di leen wax par di dagg seen rasta yi takk ay rasta di dagg rasta jàmbur yi dama ne loolu agression la banditisme la Sëriñ Tuubaa waxu ko Alaaji Maalik waxu ko Baay Ñas waxu ko newul ci xasaayit newul ci kaamil newul ci bible banditisme la donc ñooñu doon wër di wataate di dagg rasta jàmbur yi di dagg bracelet di summi casquette jàmbur di ko sàcc ay sàcc lañ weesu wuñ ko ay bandi salta lañ lu ñuy Baay Faal ay Baay Foo lañ ay agresseur lañu motax señ bi téré leen lool té looloy dëgg nak lañ doon def agression la banditisme la nit bu nango sa casque da nga wara dem droit am droit porte ko plainte c'est un agresseur c'est un bandit de grand chemin lu mu def du du du xam-xam yalla waxuko ko Serigne Touba waxuko ko waxuko Niass waxu ko Limamou Laye ko konk tayef la banditisme la le xalif général jël deux cent million joxe ko ci addi doomu aadama yi Bamba Amar encaissé ko dugal ko ci kontam seddoo ko ak ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diop ana Baye Fall yi loolu ñun waxuñu ko de bu dee dëgg dëgg dëgg moo leen ñor yéen kër Moustapha Diop ngeen war a assiégé bu dee dëgg rek moo leen ñor kër Moustapha Diop ngeen war a assiégé bu dee dëgg moo leen ñor ki encaissé deux cent millions xalif général ba ñun waxuñu ko de e moo ko wax cour des comptes moo ne cent millions yu xalif général bi jox Bamba Amar moo ko récupéré ci kontam dugal ko ci kontam yóbbul ko Moustapha Diop ñu indi ko seddoo ko kon kon bu leen Baye am na muy dëgg Baye Fall ya war nañ dem wëri kii nga xam ni mooy Bamba Amar indi na ko génnal yow chauffeur kese génnal xaalis bi assiégé kër Moustapha Diop mais duñ ko def déedéet duñ ko def de baadoolee la ñu xool ñi nga xam ne takk sa benn brassard ñu agressé la takk sa benn casquette ñu agressé la ay agresseur lañu duñu dara du duñu murit ñu bàyyi faal agresseur cent pour cent lañ te c'est des bandits salté c'est des bandits salté léegi nag mille milliards yi ñu sàcc xalif général des mourides Sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke jël li nga xam ne moom mooy addiyew murit yi ak la mu yor moom it lépp ñu dajale ko bandi salte bu mel ni Bamba Amar récupéré ko ak Moustapha Diop maire ministre bandi salte caga bordel seddoo ko ak ñeneen ñi dama ne loolu moo war a nekk débat bi tey loolu am nay këyit loolu ay këyit la loolu audit la yu leer naññ lu ñu bind rapport nga liir ko ma liir ko ñëpp am ko ñu war a laaj suñuy mille milliards yu ñu cotisé yoo xam ne état bi defu ci fukki dërëm cotisation wu askan wi la ñu toroxal ñu dóor ñu tëj ñu nangu su suñuy alal takkal ñu ay masque comme ay xar tëj ñu ci néeg yi angu fee foofu naan ñu ne passé lakaar ak mootul kii ak nangam nangam tëj ñu ci biir kër yi ñuy reyante am ñu bëri ñu dee ci ñun ministre ba génn di cappaccali bët di jooy di di jox ay chiffres amul fenn film googu yëpp mille milliards peuple bi yaakaar naa ne war a nekk tey débat bi ñun bu ñàqee fayda ba bandi yooyu séddoo mille milliar ya ba séddoo deux cent millions xalif général ba ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñëw di wëlbati débat ba bàyyi fa loolu naan ay di wax ci benn 120 milliards yu amul këyit amul dara du rapport du tous lu dul sosal mouridisme yaakaar naa ni ñooñu bu fekkee ni ñooñu mun a dëpp débat boobu ñun la nation sénégalaise ñoo am problème te ñoom nuñ ko waxee ak ni mu amee bokkut parce que Yérim Seck dafa ñëw li mu wax ak la am bokkut le journal Canard boobu ñuy wax naan xaw Canard boite xaw ma Canard nangam muy fen murit yàlla taqal def ne Qatar yi jël nañ xaalis dem jox ko euh, euh, Touba xëy na mooy bàyyi foo yooyu doon taxawaalu di wataatee ka dagg rasta jàmbur yeeg foqati mooy bandi ya bandi salte ya xëy na ñoom la mu a jël nañ ay milliards jox ko waa Touba pour waa Touba dem mun a soutenir ki nga xam ne mooy seen frère musulman muy Ousmane Sonko maanaam Touba lieu terroriste la loolu la kanaar bi wax loolu la ki nga xam ni moom mooy nga xam ne day wiiri wiiri Yérim Seck bugg a wax parce que kanaar boobu mu wax journal boobu mu wax loolu la wax journal bi ñun ñëpp liir nañ ko boo leen bëggee it mun naa leen ko indilaat ngeen liiraat boo leen bëggee ñu liir ko léegi rek yàggut mun naa leen ko liiral donc dafa sosal dafa sosal musulman yi wax frère musulman ba ko déggee comme ñoom nuñ koy waxee donc mi ngi nii paperaas baa ngi nii lii la Yérim Seck doon wax parce que nee boobu mooy journal bu gën a jar san ay kàcc la ba pare ne journal boobu lu mu wax dëgg la kon Yërim Seck nee na waa Touba ay terroriste lañ lañ ko waxte dee loolu wax waa Touba ay terroriste lañ Yërim Seck ko wax parce que nee na journal boobu lu mu wax dëgg la te journal bi daf na yéen ay yéen waa Touba ñun ñii ay ñëpp ay terroriste lañ waa Pastef ak waa Touba ñooy liggéey ci terrorisme financement occulte loolu lañ wax mun naa ko liir les démocrates sénégalais tiraillés tiraillés quelle chance d'être électeur au Sénégal à huit mois de la présidentielle L'IAGNA. déjà dans ce beau pays l'un des derniers bastions de l'influence française en Afrique Mais la démocratie est joliment représentée premier candidat présidentiel potentiel le président sortant Macky Sall qui en briguant un troisième mandat piétinerait à la constitution il est aussi soupçonné de vouloir éliminer méthodiquement, méthodiquement tous ses adversaires politiques, quitte à instrumentaliser la justice en face. Le principal opposant Ousmane Zongo a été arrêté le 28 mai, ce qui a provoqué des émeutes à Dakar et dans les autres grandes villes du pays, et d'une répression qui a déjà causé une vingtaine de morts. Accusé d'un viol en 2000, a été condamné pour seulement un verdict qui le rend en principe inéligible en février prochain, tout en évoquant un complot politique. Son conseil défendu avec élégance. Bon, L'opposant qui se réclame de l'islam local. Livre, journal, l'opposant qui se réclame de l'islam local <laughs> l'islam local xool leen foofu rek étikete lu garaaw lañu wax fii li Yérim sekk di bugg a daganal nii ab saaga la ci islam ñii moom mooy ñi nga xam ni les faucons ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yéliminaar yi pour ñu dugg islam ñu yàq islamu senegal ñoom Yérim Seck violeur fa lañ bokk Macky Sall mi demoon défilé ji Charlie Hebdo fa lañ bokk lii ay journalu satirique lañ yu bañ islaam doucement mu ne l'opposant qui se réclame de l'islam local murit allahu akbar murit yi jóg leen Yérim Seck tey waru fi fanaan bu dee dëgg la ñi comme ñenn ñi di agressé ñenn ñi bañ ñenn ñi ndax dañuy wax murit jóg leen ndax kii daa saaga islam ñii comme nu nu ñu saagee woon islam ba Charlie Hebdo ñoom euh, Kouachi Coulibaly jóg dem fekk leen foofu ratatati leen noonu ngeen war a jóge wëri Yérim Seck ratatati ko ndax Canard Boite bi nii li mu wax Canard enchaîné yi dafa saaga islam moom ak ñoom ñoom Charlie Hebdo ñoo yem képp dañoo saaga islam saaga murit Yérim Seck taxaw ci télé bi naan ñii dëgg lañu wax nee nañ l'opposant qui se réclame de l'islam madame Ousmane Sonko local mourit, est également partisan de la peine de mort allahu akbar Quand nee nous, moom journal bi nee Ousmane Sonko qui islam bu bees bi la bok moy terroriste moy ñi nga xamni ay lañ partisan de la peine de mort nga xamni buñ fi peine de mort di ray nit yi de l'homosexualité

avec l'appui des frères musulmans Moi. Euh, ñi ñi wax naan ay jomaay fay kii la lu mu ay ay fay euh, euh, en 2021 après une première arrestation de son son le leader frériste Mon frère musulman hein égyptien muy Saber Machour appelé à, à, à, le soutenir sans réserve l'argent du Qatar principal bailleur de fonds des frères musulmans allah akbar ñi yabaate nañ de inonde le Sénégal pour convaincre les mourides de soutenir Ousmane Sonko allah Mourid sosal de xaalis bii ñuy wax député boobu Tok di wax Mouridi, la na Touba ay lekkkatu alal gu bon la ay lekkkatu fonds occulte la kon député boobu noonu dafa saaga ñun dañoo saaga ñun murit yi dañoo saaga saaga xalif général bi kookoo ñu saaga kooku taxaw di wax noonu nee nañ ci journal bi lañ ko gisee journal bii nag daf ñoo jël ñun murit yi étiqueté ñu comme ay terroriste étiqueté ñu comme ñuy encaissé xaalisu Qatar islam radical pour teg ay bomb rey ay doomu aadama ñii kii kon Yérim Seck député boobu ñooñu ñëpp ma tambal ja ñooñu ñëpp fi ñu jëlee lii islaam lañu sosal waaye mouridisme lañ sosal yoonu Serigne Touba bi lañ ne dañ koy gàkkal ñu ne Qatar dañoo dugal ay milliards inondé Sénégal Touba pour convaincre les mourites de soutenir Ousmane Sonko kon Khalid Bikay, kan moo koy Ousmane Sonko kenn waru ko laaj Ousmane Sonko ñii waxuñu ni Ousmane Sonko moo ko jox dañ ne waa Qatar indi la ñuy milliards jox ko waa Touba corrompu yi ñoom ñoo ko wax jox ko waa Touba katu alalu ger yi ko waa Touba bandi yi bombi, bomb yi jox ko waa Touba katu reykatu katu nidi, ñuy xeex góor jigéen jox ko waa Touba ñi nga xam ni dañuy buñ faloo dañuy prôné li nga xam ne moom mooy peine de mort jox ko waa Touba pour ñu soutenir usman Sonko nga xam ne bu gañee dañuy mun a xeex góor jigéen mun a teg fii peine de mort et cetera criminaliser góor jigéen kon waa Touba lañu sasal waxuñu ba léegi Ousmane Sonko moo jot xaalis bi nee nañ murit yaa ko jot ca Touba. xëy général baa recevoir jox ko murit yi pour ñu appeler Ousmane Sonko pour bu faloo mu xex fi homosexualité teg fi peine de mort donc Touba lañu ñu sosal kon Yérim Seck Touba la sosal ñun ñi la sosal xalif général ba la sosal bépp murit bu dox Yérim Seck sosal na la parce que nee journal bi lepp lu wax Kamil la waxu yalla sax gënul deug journal bi ndax na journal bi lepp lu wax Kamil la donc sosal nañ ñun murit yi takal nañu diñ nañu ay terroriste diñ nañu ay takkatu bombu diñ nañu ay frères musulmans diñ nañu ay sen entre guillemets salafiste islam local euh, euh, cetera etc etc donc ñun murid lañu takal Touba lañu takal takkal suñu de général des mourides lañu takal takkal nañ fa lañ duggal bi l'argent du Qatar principal bailleur de fonds des frères musulmans des salafistes etc. etc moy inonder le Sénégal pour convaincre les mourides de soutenir Ousmane Sonko donc Khalis Bobo nan lañ koy demander Ousmane Sonko xana li du français français nee wa waa Touba ño jot Khalis bi pour jox ko murid yi pour ñu soutenir Ousmane Sonko pour bu faloo mu mëna xex li nga xamni mom moy gor góor tek fi peine de mort doxal islam ci dëkk bi. Mune. ne ben, diplomate marocain wax la même chose et plusieurs sources françaises sur la même analyse donc li ko Ousmane Sonko togn ko kan mo ne <laughs> Ousmane ñi wax ñu ba Ousmane Sonko recevoir ñoom ñoo ko recevoir am ñu ñu bëgg dëpp affaire yi naan Ousmane Sonko ñii kay murit lañ sosal ñii man lañ sosal yow lañ sosal suñu islam bi lañ sosal suñu diine lañ sosal sosal nañ suñu diine sosal nañ islam solal nañ murit sosal nañ suñu diine sosal nañ suñu religion kon ñii comme Charlie Hebdo lañ kon ko Yérim Seck ñii la toog ni lii nii mu liir nii ñii lépp luy wax dëgg la donc lii mooy wax ji donc bu leen tëmb ci débat Ousmane ko ba léegi jii ñu ko ba léegi jii ñu ko ne dafa recevoir dañ ne xaalis bi waa Qatar ñoo ñëw dem gis murid yi jox leen ko sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké ci satam geeg sellaayam nga vraiment nit bu wax ni recevoir na xaalisu Qatar dañoo yëpp Ousmane Sonko rek mais loolu lañ bëgg a wax de ne moom sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru moom daal recevoir xaalisu Qatar après jox ko murid yi pour ñu jàppale Ousmane Sonko loolu moom da lañ fi sosal léegi nag gars yi ñëw ñoom bu ko dëpp naan Ousmane Sonko moom lañ ko jox ak lettre beeg bu dee lii lañ wax Yérim moom ñëw na ba ne journal bii la Canard enchaîné ba validé ko ba ne amul lu ko gën a dugg lu ko gën a baax lu ko gën a wax dëgg donc wax jaa ngi nii ñii nag la murid yi war a dem encercler seen kër yi ñii la Baay Faal yi war a dem jàpp Yërim sekk futti ko ba mu set wat ko ñuus ko yóbbu ko ci xalif général mu tuub jéggalu ci sos gi mu sosal xalif général bi ma Madiambal Diagne même chose la sosal xalif général bi sosal ki nga xam ni moom mooy euh, Sëriñ Bass Abdou Khadre sosal ko kon murit yooyu ñuy wax Baay Faal yooyu ñuy wax ñoo ñoo waroon dem wëri ma dambal jaañ jàpp ko ñuus ko wat ko ma mu set yóbbu ko ci xalif mu jébbalu ji te jéggalu ji jéggalu te jébbalu ñii ñooy saaga muridisme mais kenn du ci wax ñii ñooy ñii ñooy jàpp suñu tarixa bi di ko sosal di ko saaga di ci wax di n'importe ko mais kenn ñi leen te ñi ngi senegal di dox ñi ngi Sénégal di dox Yérim Seck dafa war a génn jéggalu murit parce que lii mu wax nii validé ko li tubaab bi wax ñaaw na loolu lu mu teg ci yoonu murit li tubaab bi wax bind ko signé ko ñaaw journal bi li mu wax Canard enchaîné saaga na islam saaga na mouridisme sosal na ko jëñ na ko ay l'argent sale jëñ na ko ay fonds occulte yuñ jox ba jox ko waa Touba pour ñu dem voter Ousmane Sonko pour xeex góor jigéen pour teg fi peine de mort donc ñii war nañ leen tagaat yóbbu leen ñuus leen ba ñu set wat leen yóbbu leen ba ca Touba ñu jébbalu te jéggalu jéggalu te jébbalu ñii ñooy saagakatu murid yi man la dëgg ma ñor du ma naafiq du ma gis nen ne nenay ni ngi nen gi laay wax dama ne Yërim Seck naafiq la taalkatu réew la saaga na islam saaga na murid yi Madiambal Diagne ku réew la naafiq la saaga na islam saaga na murid yi ndax journal bi ku dem ba ak lu mu sosal Touba nga naan li mu wax yëpp dëgg la yow kooku moom mooy da ngaa ànd ci wax jooju dañ laa war a lijjanti. mais Ousmane Sonko na ba journal waxul benn yoon Ousmane Sonko recevoir na xaalis musu ko wax nee na murid yee recevoir pour jox ko Ousmane Sonko pour mu falu ñu xeex fi samp fi diine islam wax ji leer na nañ donc ñi bu dee dëgg rek moo ñu ñor mo ne yërim sekk tey waru fi fanan te gënul leeralal parce que dafa saaga suñu diine dafa saaga islam du murit kese dafa saaga islam parce que dañoo taxé de frères musulmans taxé ñu de salafis entre guillemets malgré nous sommes tous des salafistes mais entre guillemets moy moy mooy extrémiste terroriste dañu taxé de d'extrémistes terroristes taxé ñu de islam local radical de l'islam local radical murid, murid ñu def entre guillemets islam local radical donc li lu doy war la ay yërim sék yu gëmul diine gëmuñu islam di saga islam di sénégal jël lu tay di mouridisme lu fi Serigne Touba liguey ñukay koy taxé de l'islam local radical jël mouridi def leen ay radicaliste islamiste poseur de bombe frère musulman salafiste entre guillemets Ils recevoir ay fonds occultes ay financement occulte yu Qatar yu ñu leen jox pour ñu financer pour ñu financer leen pour ñu jàppale Ousmane Sonko li lu doy war la di wo bépp bépp Baay bépp nit bu dëggu te ragal te te dox ci yoonu islam di gëm Serigne Touba mu jóg pour xeex lii ni is ne Yérim Seck sosal na islam sosal na murid yi Madamba Diagne sosal na islam sosal na murid yi sosal na xalif général ba sosal nañ Touba lu day ni murid yi Touba nga dem di leen sosal ñii ñoo ñu bon ñii ñoo ñu yées ñii ñoo mérité ñu ñuus leen ñii ñoo mérité ñu wat leen ñii ñoo mérité ñu futti leen ñii ñoo mérité ñu noq leen diri leen ba Touba ñu jéggalu te jébbalu ndax bu ñu demee ba jëmmi jamono yoonu Serigne Touba bi ñi ci wax ay waxu fonds occulte di ci wax ay fonds salté di ci wax ay financement occulte ñii commencé dañ ñoo di dañuy assimilé ak ay terroriste di dañuy assimilé ak ay islamiste radical ak dañuy assimilé ay islam local ak mais comme ñun mënuñu jàppalee kanaar kanaar enchaîné bu fekkoon fii lañ ne ñu taal ko mais comme ñun mënuñu taal canard enchaîné comme ñu français yi boyalee fi nga xam ne mooy Charlie doo seen représentant yi dañ la war a ñuus du woo bépp murit ku baax ku bëgg Serigne Touba nga jóg taxaw pour ñu ñuus Madiambal Diagne mii nga xam ni dafa sosal Touba ñuus Yérim Seck du woo bépp murit ku gëm Serigne Touba rek képp ku ragal yàlla képp ku gëm islam jogal te xam ni kii nga xam ne seen représentant yi kanaar bii muy kanaar enchaîné li mu sosalee suñu islam bii di set te sell sosal ko suñu murit yi sosal ko Touba nañuy jóg taxaw temm pour xeex les représentants du satanisme ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal di sosal islam di sosal murit yi di sosal Touba di sosal diine islam ñu jog taxaw kii Eh, Ousmane Sonko n'a rien à voir man dama ci gis sama bop. di di li du teur. di di li di ni diñ islam Serigne Touba gi ay islam radical di diñ Touba gi ni ay waxu recevoir khalis pour mun voter Ousmane Sonko C'est incroyable barke alxuraan barke Serigne Touba bu fekkoon Canard enchaîné mi ngi tuub mi ngi Sénégal heure bi boyal ko. ay représentant la ñu yor nag mooy ay journaliste yi Madamba Diagne ak Yérim Seck yi nu mujj ci tey nañ jóg ci ñii nag nañ jóg ci ñii lii Ousmane Sonko n'a rien à voir débat bi ndakate du Ousmane Sonko dañ koo nëbb lépp Touba lañ ko jiiñ Mouride lañ ko jiiñ islam lañ ko jiiñ dañuy taxé di n'importe quoi bañ ko defee islam ca France doo ñi nga xam ne ñuy représenté dañoo génn dem taali Charlie Hebdo tiire leen ay bal fetal dee nañ ci sax ñoom ba bakkan lañ ci teg. lii dafa kéemtaane lii lu ñaaw lu ñaaw lu ñu teg ci deru murit la lu ñaaw lu ñu teg ci deru islaam la lu ñaaw lu ñu teg ci deru tuubaa la lu ay ñu mel ni Yërim sekk def ñu ma dambal jaañ def léegi nag loolu du affaire u Pastef loolu du seen affaire jaruñu sax ñu ci wax loolu ñu murid yi ñoo koy regle diine islam moo koy régler loolu dafa génn nag ci secteur affaire bi nekkul ay affaire Pastef fii kenn waxu fi Pastef lii bu ngeen ko liiree turu Pastef nekku fa murid moo fa ne diine islam moo fa ne ñu taxe ñu ak liñ ñu liñ ñu liñ ñu féetale lii bu ci Pastef nekkee di ci wax dañoo bëri jot mais sincèrement fi pasteur Abou fi sincèrement waxuñu ben yoon ni Ousmane Sonko jot na xaalis dañ ne mouride lañu jox frère musulman mouride murid lañ jox xaalis pour ñu dem jàppale Ousmane Sonko pour bu faloo xeex góor jigéen xex xeex xeex euh, euh, euh, di diine islam sam sanc ko fa def ay état islamiste nangam ak nangam donc sincèrement fii moom bu Pastef nekkee naan dañuy débat wala ji werante wala naan dañuy défendre fii moom vraiment waxuñu dara ci Ousmane Sonko fii ndakate affaire bi du ay Ousmane Sonko lañ wax moo recevoir de waxuñu ba léegi ba dafa recevoir murid lañ wax ñu recevoir ban murid la ñun murid yëpp suñu kilifa suñu xalif moom mooy Serigne Sidi Mokhtar ñun murid yëpp suñu dee sañu sañu sañu kilifa moom mooy Serigne Saliou Mbacké ñun murid yëpp suñu kilifa moom mooy Serigne Touba ñun murid yëpp suñu kilifa mooy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké donc buñ jëlee mbir ko takkal ci deru deru murid moom mooy taqal nañ ko lépp dajale nañ ko taqal ko ci deru Serigne Mountakha Bassirou Mbacké soxlaal nañ ko nag tiiñal nañ ko takkal nañ ko jiiñ ko ay waxu xaalisu Qatar parce ñun murid lañ ko taqal islam lañ ko takal parce que le fait que de d'assimiler suñu islam ak radicalisation moy lolu islam la du wessuna mourid sax nak li lu doy war article bu yéme la article bu l'article tal rew la article bu kentane la article bu satirique la article bu boyal ab rew la bu indi euh, soku sokuwe ab rew bu indi sax guerre civile ci ab Yérim Seck ñëw di ñu ko wax ci ay télé kéemtaane na doy na waar war nañ mën a gën a nag takk sañuy laxasaay ñun murid yi ak ñun diine islam am ful lay fayda ndax nit yu bon yi nga xam ne dañ leen yónni ay force occulte yooyu ñuy yónni ñu ñëw di yàq suñu diine di ñëw di sosal suñu diine ci li nga xam ne islam radical bi nga xam tubaab bi ñoo ko créé pour sosal ñu ko ñun borom euh, is ñun di diine islam di ñu ko radicaliser di ñu ko jéem a apostrophé ñu am ay représentant yu doy waar yu nekk suñu réew yi di ko jël di ko infiltrer di ko dugal ci biir réew mi ndànk-ndànk nañ war nañ taxaw. dañ jóg taxaw nag fulla ak fayda voilà c'est incroyable ça nit yu bon lañ ay nit yu yées nit yu xaram lañ ba léegi continuité la lii la Macky Sall la doon wax fële di ñu jiñ ay terroriste ak di ñu jiñ ay poseur de bombe ak ay poseur de bombe ñu ñëw Yérim sekk dina di ñuy sosal di wax ay wax murit ñii ay nit yu bon lañ ay nit yu bon lañ sax c'est la continuité de Macky Sall li mu waxoon France jiiñ Sénégal ay terroriste jiiñ sénégalais ay poseur poseur de bombe ñi continuité bee nekk ni ay nitu bon a nii ay nitu yées a ngi nii te ku leen xool amuñu benn leer ci yàlla voilà di leen wax nag ñun nañ continuer ci combat bi dañ nekk ci lu ñu nekk ñi dañ fiy jóge dañ fiy jóge par A ou par B ni dañ fi jóge dinañ fi joggé ci A wala ñu joggé fi ci B débat bi xam nga lan la léral lañ ñëpp sénégalais di ñi mouride lañ sosal islam lañ sosal mom lañ apostrophé ci ay kàddu yu ñaaw jox seen représentant satanique satanique seen représentant satanique yu nek sénégal à savoir yérim ak ma dambal ñu promouvoir loolu noonu ci ci suñu Sénégal mooy benn ñaar mooy balaa ñoo wax ci loolu nañu wax ci mill milliards yi ak liñ ci daj ci milliards yi ñu daj milliards pour seddoo mille milliards ay milliards lañ ñu faraj tëj ñu ko ci kër pour seddoo ci mbedd mi ay mille milliards loolu mooy débat bi donc bu leen musa nangu seen xel yi ñu koy football di ko wëlbati li gën a am solo bala waktan, waxtaan ci njogonal da ngay wax ci añ njogonal munul am fo añ añut amul njogonal dama ne li ñuy wax ni murid yi di sosal murid yi loolu njogonal la nañ wax añ bi añ bi nu mu mel la njogonal ba mel añ bi munul naqari njogonal ba neex ndax njogonal ci añ ba lañ ko tibbee donc mille milliards yi la ñuy lijjanti le fond covid ñi ñi jàpp ñi sàcc ñi rawale seen cinéma bañ fa defoon loolu moo war a nekk débat bi dama ne ngeen lànk lànk leen ci diversion yi lànk leen ci ñii di jéem a wëlbati seen xel yi ci caaxaan ci en un clin d'œil lànk leen loolu lii nag murid yi ñoo ko dese nañ ko lijjanti du yëfu Pastef léegi nag nit yi ñuy jàpp ay ñu tekkiwul dara di ñëw ci benn toogub télé rek ñu wëlbati débat bi ba ngeen fàtte l'essentiel di wax ci li ñàkk fayda bàyyi añ ba bay wax ci ndoganal la loolu mooy problème am na bu ñu seetaan kenn dañu manipuler bu ñu seetaan kenn dañu divertir waaye bu ñu seetaan kenn di wëlbati débat bi dañuy yóbbu ci lu ñàkk fayda wala lu amul benn sens wala loo xam ne ñeneen a ko war a lijjanti ñu nekk di ko lijjanti suñuy mille milliards la ñu bugg a xam fu mu jaar suñuy mille milliards yu am mu leer nañ ñi am ay preuve ni yéen a sàcc séddoo suñuy mille milliards lañ bugg a xam fu mu jaar ñu jàpp leen tëj leen noq leen ci kaso bi ndax waxoon nañ ni ubbi nañ ay enquête procureur woone leen ba léegi jàppul picc loolu moo war a nekk débat national bi loolu moo war a nekk débat bi ci seen i xel moo war a nekk dabaa bi ci seen toogaay moo war a nekk dabaa bi partout bu leen nangu diversion bu leen nangu ñuy wëlbati lu am solo di leen jox lu ñàkk solo di leen jox yax bu jeex tàkk ngeen ci ŋeeñ dañuy lekk yàpp bi jox leen yax ya lank leen ne doo leen ŋeeñum yax lank leen doo leen muus lank leen doo leen i xaj mënuñoo lekk yàpp ba sàddee leen yax ya ngeen di ñeeñ li fi am solo ëpp fi solo nañ ko lijjanti suñuy mille milliards fonds Covid yi ba léegi jàppuñu doomu aadama loolu moo war a nekk le vrai ba bu ñu war a poser ci table bi dëkk boo xam ni kenn nekku fa premier ministre ba dem na yoonam président ba dem na yoonam président assemblée nationale ba dem na yoonam dëkk ba kuy jiite kuy jiite ñoom ñetti ñëpp dem nañ politique yi ñoom ñëpp ñu ngi bitim réew di politique di cogg ak a jàgg Sénégal dëkk boo xam ni dëkk ñett ñuy dirise dëkk bi yëpp a dem seen yoon dëkk bi moo neexu coup d'état dëkk bi boo neexoon da ngay tëj frontière yi rek kenn du ñëw président ba mi nga bitim réew di taxawaalu premier ministre ba ma nga bitim réew di taxawaalu président assemblée nationale ba ma nga bitim réew di taxawaalu ñi nga ñëpp nga ci hôtel ba euh, euh, prince de gal di di wëndaaloo ko taxawaaloo ko iri ay tiaga xoolal bo tejé frontière yi kenn du dugg dekk ba jeexna dekk bi jamono ni yambal lang la def ñet ñi leen di jité kenn nekk fa dekk bo xamni ne yaay fa papa ja nekk fa nijaaja nekk fa waaye leen frontière mu jeex bu ñu tëjee frontières yi léegi rek avion baag bato yaag port baag aéroport ba jeex na dëkk boo xam ni benn dirigeant new fa kenn nekk fa kenn du président ba du premier ministre ba du président assemblée nationale ba kenn nekk fa ñaa nga ña nga prince de Galles di <laughs> di taxawaaloo ko foo yóbbu gàn gàngoor ak ay milliards di foo dëkk bu doy waar nga noonu nag dëkk bu doy waar sax dëkk bu doy waar waar waar dëkk bi ne kenn fa kenn kenn kenn kenn fa ba dem nañ dem nañ voilà ngeen gën sur l'essentiel bañ ku divertir bi kay dirige nekk nii président baa ngi fële di leen bind whatsapp naa ah, eh, defal defal nii kii eh, premier ministre bi di bind di bind ministre yi whatsapp président assemblée nationale ba moom moom tamit <laughs> ñoom ñett ñoom ñett ñëpp ngi fële ñoom ñu ànd nañ dem di di taxawaalu Paris ña ngay wëndaale ñoom waaw ah, jël dëkk ba nag di foowe te leader ba politique ba opposant ba di leen foowe ay la douze ak Pastef ne doit pas attendre rien du tribunal d'instance de Dakar rien dara dara dara parce que waru ko le juge Ousmane Racine Thion Ousmane Racine c'est un magistrat carriériste qui a dafa à la solde du président placé à ce tribunal d'instance ci loolu lay dox du régime

ce marathon judiciaire-là que l'État veut imposer à Pastef sur la candidature de Ousmane Sonko. L'objectif, mon faire le dilatoire. Qu'est-ce que Faire le dilatoire, faut Hélène. yàgg nañ que ko wax te suñu wax mooy mujj di dëgg ba ngeen jógee ci wax lañ ne leen candidature Ousmane Sonko xeex la mu dem ñu De ko dëkk bi tàng a du stable ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dem munu leen ko amul beneen possibilité bi ngeen mën pour Ousmane Sonko dem loolu dañ ko teel a leeral ne leen justice doo leen fa am ndam ay waxtaan doo leen fa am ndam ay négociation doo leen fa am ndam Ousmane Sonko lu koy libeere yóbbu ko ci présidentielles yi xeex kese la mën ngeen ko ngeen ne waaw ne ay ja mënu leen ko ñu leen kon jeex na jël leen Ousmane Sonko féete leen ko boor nañ wutaat beneen solution te wax jooju ba léegi moo fi ne musul dindeeku virgule virgil ña ñu ma tàmbale woon ca wax ja te deux mille vingt et ba suñ jonn yàlla tey maa am dëgg ci ñoom maa ne leen la candidature de Ousmane Sonko lu dul xeex lu dul fëggante lu dul dëkk bi tàng jër bañ a taxaw nag non stop du ko xandal H24 di cocktail di ko molotov di ko dóor di fëgg di yóbbul dëkk bi tooy booy lépp jaxasoo rajo xoo ba tàng jër mooy génne Ousmane Sonko moo ko yóbbu. bu dul loolu am ngeen énergie ngeen ne amatuñ ko man leen kon nag bàyyi leen mu daanu du Ousmane Sonko du dem dañuy teel a leeral bëgguñu ku ñu foowee nekkuñu ci ay caaxaan réew mi dama ko sori gën ko comprend ña fa ne

di ko éclairer ña nekk biir Sénégal comprendre nuñ ci dara mu leen di wax ñuy xool ba bu ñu gisee régime ba daanu noonu la fi demaatee fii la ñu nekk Canada di ko leeralal ay nit yu nekk biir Sénégal di xool duñ comprendre tous ci lu ñuy gis nga nekk fii di leen ko leeralal nañ ñuy dox di dox di dox bañ gis ba changement am ñu retourné ah bu boobaa nag même bu keneen di ñëw di xeexi Ousmane Sonko wala keneen ak keneen keneen lay doon buy jógee feneen nekk bitim réew moom taxaw di ko xeex. waaye la koy lanterne lu koy leeral chaque jour du nekk Sénégal dina toog du gis tous nit ki nekk fële sori gis lu mu dul gis di wax moom muy werante fin fin wi ka nekk fële mooy am dëgg ci moom dama cee teel a leeral nee naa leen la candidature de Ousmane ko doolee koy xeex du xel du xalaat liy gañe nag présidentielle yi xel la Ouais la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles le lu yóbbu ci Ousmane Sonko ci élections yi qu'est-ce la du leneen du mayin du khalat, du khel, du naaw du dara xeex kese la xeex xeex kese kese kese bu xeex bi amul kenn mënul fexe ci khalat, ci khel, ci jëmm lo mun def ba Ousmane Sonko dem ci élection yi kooku je défie quiconque je défie konk ak koo mën a doon Sénégal ngay jaay xam-xam je dara mënul yóbbu Ousmane Sonko ci élection yii moom jëmm Ousmane Sonko dara du ko fa yóbbu lu dul xeex buñ ko lebee xam ne du dem xeex kese léegi lii lépp dilatoire la di dawloo gars yi rek di leen fooye rek marathon bi marathon xanaa war ngeen see sonn li ñuy imposer depuis boobu de yóbbu nañ leen dakaar tribunal de Dakar ngeen daw ñu yóbbu leen Ziguinchor ngeen daw ñu indi leen euh, BAG ngeen daw ñu yóbbu leen euh, fële daaf ngeen daw ñu yóbbu leen euh, Cour suprême ngeen daw ñu yóbbu leen ngeen daw ñu leen di daw da ngeen di xoox ba las ñu ne leen jeex na bu boobaa tamit da ngeen koy nangu ne ah laa da waxoon nañu ko noonu lii bu ñu ko xamee woon defee nii ñun kay kii nañ nangam eh, téye seen ndigg yi sonn nag. daw nañ ba sonn oui Macky la bon Macky Sall di sonnal lañu xool na fekk moo laa wax bokkoon na ci yéen wax leen ne bu leen bàyyi leen daw yooyu kaay leen kaay leen xam lan la xeex wala bàyyi bu leen ci topp di daw doo doo leen fa dara donc kay yàgg naa leen ko wax musuma changé ci discours. te ba suba ba ginaa suba élection yii nii Sonko jëmm bu fa dem xeex la leneen mënu ko fa yóbbu boo leen lebee xeex bi du fa dem amul benn mënu leen dëmm dëmm la ba mu dem fa mënu leen wut justice ba mu dem fa mënu mënu leen naaw jaay xel bu boo leen indi woon xel bu gën a kawe ci monde bi mënu leen ko yóbbu foofu ba mu dem fa te xeexu leen ko amul nekk léegi nag bu ñu lebee loolu wut yeneen solution solution yooyu nag Sonko yor na ko moo tax man dama teel a wax ne kii gagné élection yi Sonko koy désigné musuma leen wax Sonko la de kii gagné élection yi Sonko koy désigné Sonko moo koy désigné mais Sonko ci boppam du dem ci élection yi de Sonko ci boppam doole ko gis ci élection yi de dañ jaay nañ ko doole fitnaal nañ ko teg nañ ko sañ-sañ tër nañ ko tere nañ ko dem donc comme wax a leen ni Sonko nit la ci idéologie bi mais idéologie est moy l'idéologie de Pastef régnera un maître sur cette terre Pastef gagnera ses élections présidentielles Pastef gagnera ses élections présidentielles et l'idéologie pastefienne patriotique, souverainiste, libératrice gagne régnera en maître sur cette terre ñaar yooyu takk leen ko téere takk leen ko téere kii gagne élection yi Sonko comme koy joxañ mais Sonko du gagne moom moom ci du du dem Sonko du dem kenn mënu ko fa yóbbu ci xel kenn mënu ko fa yóbbu ci xalaat du dem ci élection yi ba ko Macky sàll baaree turam du tey bañ ko xamee du tey bañ ko waxee sénégalais du tey du tey mais Sonko mooy joxoñ kiy gañe te kiy gañe kuy bettaate la kuy bett sénégalais la kooku sunk kese mooy tax mu gañe bu àndoon ak baayam moom kese du gañe kii gañe élection yi bu àndoon ak yaayam kese du gañe bu ànd ak waa këram kese du gañe bu jógoon taxaw moom kese kenn du ko woteel kii gañe sonko la sonko koy joxañ mooy jël leeram sotti ko ci waa ji gaa yi topp ko mooy transcender leeram ci waaja gaa yi topp waaja waa ji bu gañee sonko la joxoñub sonko la kàddub sonko la dig dig la moom moo koy santaane ma waxaat leen kii gagné présidentiel yi kenn du ko ko xaare kenn du ko ko yaakaare du mën-mënam du dooleem du kàttanam du bëgg buñ ko bëgg xamuñu ko sax baayam du ko votel moom kese yaayam du ko voteel moom kese ay frère am ak i sœur ak i ak jarbaatam duñ ko voteel moom kese ñëpp Sénégal dinañ ko votel ndax Sonko koy joxoñ transcendé ko leer ga ñëpp topp ko voteel ko te mooy gañe kon kii gañe Sonko la kii gañe Sonko la mooy gañe élection yi Pastef mooy régner en mille vingt 2024 incha allah et vous le Inch'Allah, sobe yalla Non, Non, la ko yalla beugé non la ko yalla beugé pour moi clair Amadou ne peut même pas gagner parcelle pour gagner un pays Amadou ne peut même pas gagner parcelle quelqu'un qui ne peut même pas gagner son fief ne peut pas gagner un pays on n'a pas, on n'a pas de temps à discuter de ça. ku mu ku sa wa keur bagn ku sa wa keur di xex sa wa keur bagn la sa bay bagn la sa yaay bagn la fa nga juddo <laughs> mbedd nuñu la bëgg ku la bëgg na fekk la bu la sa bay bagné sa yaay bagn la say frère bagn la say sœur bagn la ñepp bagn la ku la gis bëgg tufli comme koku nu bu la mbedd mi bëggé na fekk lañ té bu ëllëgee nga ñap sen mam ndax sa muljum saya joom sa yaay saya say frère joom say sœur joom fa nga dug fa nga dekk fa nga baye fa nga magge ñepp sip la bañ la yi ngay ko yees bo génnee ci mbedd ma ñu bëgg la ku la bëgg naa la te bu suba di nga ñap mamam leer amadou ba ca parcel aseni kenn bëgg ko munu fa gañee gañee wu fa donc ko ko gëm ne mën na fenen bu dé kër munu fa gañe ko mënu gañe ci mbedd kon yoyu du débat moo tax ay Ablaye Amadou euh, Bayal sàll Bayal Bayal Ba amuñu jotam Amadou Bayal Ba amuñu jotam na dem gañe këram ba pare di doog a wax ci mbedd mi <laughs> dégg nga muy leer Sonko daa gañe këram Ziguinchor di rey seen bopp ndax sunk di jaayante ndax Sonko di génn ci mbedd mi ndax Sonko di jaay seen bakkan ndax Sonko kenn ñi mëwu fa def dara ndax Sonko lu lu mun a xeex Sonko kon Sonko daa gañe këram ñu bugg ko këram fonk ko këram nawloo ko këram jiital ko ca këram bu génnee ci mbedd mi gaa yi bëgg ko loolu leer na Sonko dañ ko bëgg ca këram mu màgg ca këram ñu màggal ko ca këram def ko kilifa ca këram mu jiite kër gi yépp kooku bu génnee ci mbedd mi ku ko bëgg du la du la assassiné du la kii mbégte nga fay am ndax këram dañ ko bëgg ñëpp bëgg ko baayam bëgg ko yaayam bëgg ko ku sa baay bëgg sa yaay bëgg say baay di la ñaanal nga am ñaanu ndey ñaanu baay frère sœur ñëpp ñu bëgg la ku amul ñaanu baay amoo ñaanu ndey ca parcelle <laughs> munuñu laa bëgg ci réew ma donc vraiment ñay dof dof lu naa Amadou ñàkk munul sax gañe parcelle ku munul gañe ab sa secteur munoo gañe sa koñ bay gañe sa dëkk bay gañe ab réew nalaw leen on continue gars yi donc président bi incha allah ki koy joxe ki koy joxañ leeru Sonko la Sonko la moo koy joxañ moo ko fay teg incha allah bu soobee yàlla après niñ ko nar a doxalee ñoom loolu moom sama xam-xam yeggu fa mais ba élection yii Sonko mooy désigné ki koy gagné te ki koy gagné ma ne leen en deux mille vingt quatre l'idéologie sonkiste patriotique libérateur Euh, libératrice du moins, et euh, euh, souverainiste, pas lay don C'est ce Inch'Allah. voilà mais si vous voulez que Sonko soit président alors, <laughs> je la ne sénégalais Vous nañ donc euh, nañ ko défé ni ko sonko waxé ñun ñëpp on veut sonko mais l'histoire ak ni mu doxé motax mënul né sonko lañu kon nañ def luñu sonko wax on peut pas on peut pas être plus loyaliste que le roi roi bi ci boppam mo nangu ndogal saytane liñ ko tégg ak lepp mu nangu ko denk bopam yalla nañ ko dañ dénk ko sañ bopp yàlla bu ñu def loolu yéen ma wóolu ma wóolu yàlla boobu moom boobu bugguñu ko boobu moo taal taaloon na fi waaj ji waa ji waa ji saytaane jay jay jay jay ba mu taxaw di way yéen ma wóolu waa ma wóolu yàlla gars yi ko yaa ñëpp sama am kon kon luñ lay def di kon ñu dem wóolu yàlla waaye Sonko waxul loolu waxul Sonko nee na yàlla la wóolu kon nag ne leen yéen kaay leen wóolu yàlla li am am na nangu naa ko ndogal la nangu naa ko waaye dénk naa sama bopp yàlla kaay leen ñu dénk suñu bopp yàlla kaay leen ñu dénk suñu bopp yàlla bu leen forcé ah non non non ñun Sonko lañ bëgg waaw ah, ñun ñëpp moom lañ bëgg moom it on ne peut pas être plus loyaliste que le roi nangu na ndogal ji bi ko saytaane teg dénk na boppam yàlla kaay leen ñu dénk suñu bopp yàlla te ngeen bañ a def lu woykat ba la mu doon def voilà daane na ko de gis ngeen nu ko daanee foofu la yàqule ndax de foog boppam ku yenn saay ma téléphone kooku ma ne ko kan la mu man la yaayam kii rek mu daanu yaayam ne ma dafa xam yéen a ma wóor ma wóor yàlla fële sénégalais yow nag yow koo yow ko yow commencé ko ñuus te la yàqule yàlla des fois da jay ba nga ni yow la fekk doo ci dara moo Sonko nag loolu la teel a comprendre jurisprudence Aline Mbaye Nder am na fi moo tax Sonko da ko teel a comprendre moom leer moo tax nekk fi dans mu dañ ko def li ñu def mu gëm yàlla jox boppam yàlla ne leen kaay leen ah ñuy dem ca yàlla wéeru ko suñu bopp jox ko suñu bopp dinañu woon boppam bañ def ni Aline Mbaye dugg ci ay yu que fi yàllaa fi ne mooy yëkkati mooy wàcce buñ la tegee dara muy nattu dang koy nangu denk ko suñu borom ànd ak say nit ngeen leen kaay leen jokk ci yalla mu teggal ñu nattu bobu te yalla dina ko teggi inshallah allah du yag dara voilà kon nañ dem wëru suñu yalla sonko nga bëgg mu jox bopam yalla kay jox sa bop yalla sonko nga wolu yow ne nga sonko nga bëgg mom mu dem ci élection yi nangu na ndogal kay nga jox sa bop yalla ni sonko joxee bopam yalla te bañ fee def yëfu Aline bay Nder yooyu foofu laa koy tëjee nag yëfu Aline Mbaye Nder yooyu moytu ko mooy yëfu Aline Mbaye Nder yooyu. ay eh non ñun Sonko la ñu wax ñun Sonko ci boppam dénk na boppam yàlla kaay dénk sa bopp yàlla ñun yàlla lañu wax kaay dénk sa bopp yàlla te bàyyi sa yëfu Aline Mbaye Nder yooyu nga fi bëgg a indi voilà. kaay dénk sa bopp yàlla loolu la ñuy wax ne ñëpp ñëw ñu jokk ci suñu borom. ndugal li metti na waaye dinañ ci am ndam buñ joxee suñu bopp yàlla muy tënkee suñu bopp yàlla doylu ko xam ni moom mooy le plus grand stratège moo fi dàq teg ay stratagème donc nañ ko jox suñu bopp point te bañ def yu fu Aly Der yooyu yenn saa yi woo ma téléphone xale bi naan dama la bëgg rek daanu xam yaayam jël ma ne xam ne yéen a wóolu wóolu yàlla ci ko ñuusee ba léegi ñu ngi gars yi ko xam nga Sénégal ñoom dañuy jàpp ne ay dof lañ rek gars ko na ah, oh, nga ne yéen a wóolu yàlla ah, yaa wóolu yàlla kon daal ñun ñun ñooy xaj ji daal ñu yow la wóolu yàlla ah d' accord d' accord ñun ñun wóolu ñu wóolu yàlla ñu wóolu la yow nit yow yow nga jël sa wóolu yow jox ko yàlla yow ca <laughs> la gars yi yow ñuus ko ba léegi ca la daanoo ba léegi dañ ko ñuus ba mu daanu ba léegi mënu jóg ñuus dañ ko ñuus te ñuus yàggee ñuusu daanu yooyu jaa ba mu daanoo ba léegi mënutul jóg foofu la yàqulee moytu leen saytaane di leen jay <laughs> voilà voilà boobu la gëj a way boobu la gëj a saf xorom boobu la gëj a saf kaani boobu la gëj a neex lu nekk def na ko fi <laughs> munul ñëwaat looloo ko daane yàlla nañ ci yàlla musal Sonko nee na man ngeen wóolu koo leen wóolu yàlla wala hmm? wala ngeen ne wóolu nañ Sonko mun leen kaa leen ñu woolu yàlla kaa leen ñu wóolu yàlla loolu la waxoon man de peuple bi laa jox sama confiance sama candidature ci peuple bi la dépendre bu ko peuple bi xeexee ñu àndandoo dem bu ko peuple bi xeexul ma dënk sama bopp yàlla kaay leen ñu dénk suñu bopp yàlla kaay leen ñu dënk suñu bopp yàlla bés bu ñu tollee foofu peuple bi xeexul wala mënul xeex wala xeexam yeggul ba ma mun a dem nañu jël ñun ñépp suñu dénkaane suñu yaakaar suñu espoir dénk ko yàllaahu subhanahu wa taala yàlla defal ñu ndam loolu la Sonko waxoon donc ngeen waxu Aly Mbaye Nder yooyu denc leen ko jaajëf peace and I'm out à allah jaarama